xanaa sant yàlla bu baax sant borom bi bu baax julli ci yonent bi sangu-sang yi sant sëriñ Touba sant sunu ñaari waajur yi di sant maam Mariama buso soxna jaara maam Dior Bousso mooy royukaayu jigéen ñëpp sàkket ba mu téyaloon maam Mor fanaane caa tawte moo di sàkketi weñ yi xelam boobu moo moo waral goudron bi ñu xàll ba Touba foofi jëm balaa mi di sax nga siyaar Serigne Touba xelam moom moo waral goudron bi ñu xàll ba Touba foofi jëm balaa mi di sax nga siyaar Serigne Touba toggu ndekki la jébbal taala anta dem rooti donga yee bàyyi toolam soxna jaara moo sellal soxna jaara moo tax kuy jigéen nangul sëriñam boole ko ndukkat ak i xel boo juree mu di yaaram soxna jaara mo bari valeur soxna jaara rayu kay nyep ñep ñep soxna jaara sen rayu kay ndok nak bi turandoom bi di soxna jaara tu mel ni mom, xajoo na ñëpp ñëpp ñëw nañu ku ñew mu jox la sa cër bi nga mom tak la fa nga wara tek do xif do mar do ñak dara kon dal no ngi ñaan ci barke sayyidina muhammad barki Cheikh Ahmed Bamba yàlla nako ko ay ati ati ati at yu dul jeex jigen mom jigéen moom mooy mooy lépp rek jigéen mooy société mooy yaay jigéen mooy yar jigéen mooy lépp lépp lépp lépp ci kër kon te jigéen ñi am jom jàpp ci kër yi ñooy yar sunu njaboot yi nooy nekk suñu borom kër yu baax yi ah man de maa ngi ñaanal jigéen ñëpp parce que xam naa ne jigéen Sénégal nag vraiment zéro faute amuñu dara lu ñu wax ay ay liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu.